merci Cheikh Internet yi ñuy déglu si li ñuy seetaan si li nga xamante ne moom mooy si Bawal TV euh, Bawal TV nag euh, internet yi di ngeen ko gis si li nga xamante ne moom mooy réseau câbleur yi comme ni ma leen ko waxee rek euh, tey ñu ñëwoon si li nga xamante ne mooy foire bi nga xamante ne bio maanaam boo ko déggee am wàllu ay produits yoo xamante ne c'est naturel ñu defar ko ak yoo xamante ne ay matériels yoo xamante ne ay accessoires yoo xamante ne it ñu ngi ko fi jaay ki am initiateur bi ak am li nga xamante ne moom mooy idée bi mi ngi nii ak ñun ñu bàyyi ko rek mu présenté wu ñu wax. maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar alors man maay tudd Ibrahima Ba nekk des déjà formateur. au CFP de Diourbel ex CRETEF bu ñëpp xam maa ngi fa en tant que formateur en restauration parallèlement damay yëngu ci entrepreneuriat lu bëri nekk Yali alumni ku xam yàlli benn programme américain la vraiment moo ñu jox benn esprit vraiment ñu fépp fu ñu nekk même bu ñu fa dëkkul sax ñu mën a contribuer apporter suñu valeur ajoutée donc si sens boobu laa toog xalaat ni njaareem war nañ ci mën a def dara yoruñu amuñu xaalis amuñu dara mais am nañu. benn benn vision benn benn ay idées yu ñu mën a mettre teg la yu ñu war a mën a mettre en place donc euh, ñu xalaat ni ci biir dëkk bi am na ñu bëri ñuy yëngu seen secteur d'activité yu différent parfois population bi dina soxla dara ils sont obligés d'aller jusqu'à Touba d'aller jusqu'à Dakar pour chercher la chose alors que am na ci dëkk bi xamuñu fu mu ne donc je di suis dit pourquoi pas essayer d'organiser benn événement mensuel tuddee ko foire Bawal Bio Market Bawal bio market moom benn foire la buy am weer bu nekk benn yoon donc ci biir foire bi boo leen ci ñëw di ngeen fekk quatre rayons benn rayon bi mooy transformation produits locaux yi ngeen gis fii beneen rayon bi moom mooy agri élevage beneen rayon bi moom mooy artisanat made in Bawal benn rayon bi moom mooy service donc boo xoolee quatre activités yooyu tous seen secteurs yëpp ci ci wàllu entrepreneuriat donc moom lañu ñu a tey la ñu soog a door première édition ça a été très très difficile vraiment mais Dieu merci on l'a mis en place. mais monsieur euh, da wax na ne expliquer comme quoi que ne Diourbel. Mhm. Euh, nit ñi xamuñu ne lii am na fi. Euh, li tax exposition bi nga choisir mu nekk li nga xamante ne mooy dans une salle fermée est que mënut a woon a nekk en plein air. oui comme. Bawal Bio Market dañ ko bëgg def benn marché mensuel benn marché bu dul nekk benn marché bu mbaay en fekk autorité muy gouverneur muy préfet muy président tribunal ku nekk di nga ñëw def sa marché ni mu waree sans say tànk say tànk di poussière vraiment mu nekk benn marché vraiment bu organisé moo tax ñu choisir ci lieu bu ordonné bu mel ni terre de verdure mettre ko fi en place loolu mooy bi mooy première fois ñu koy initier ci Diourbel deuxième édition bi au plus tard dina am avant la fin du mois de juin incha allah dina am dina am chaque mois incha allah dina am benn yoon donc le mois prochain dina amaat ban ngay appel ngay lancé yoon bi may lancé ñëpp sincèrement moom mooy nañu fexe ku nekk ci li ngay yëngu nga fexe apporter benn valeur ajoutée pour fu ñu nekk man dëkkuma Diourbel man je travaille simplement ici du ma du ma du ma du ma waa Njaareem mais comme Njaareem laay liggéeyee fii laa amee fii fii laa nekkee presque ci biir weer bi sama vingt cinq jours yëpp fii laa koy passé donc sama devoir la ma mën a contribuer ci ci développement localité bi donc li mettre na ko mettre nañ ko en place ko mairie yëg na ko ñu bëri yëg nañ ko te gëm naa ni préfet moom incha allah jàpp na ci mairie également en via la salle jàpp nañ ci donc ñi des mooy population bi ak acteurs yi donc ils n'ont qu'à venir ñu jéem a xool nu ñu yaatalee lii mu nekk benn marché pour waa Bawal vraiment parce que Bawal pour man yaa un manque à gagner te à partir de là mun nañ ko mën a permettre mu mu xaw a jóg tuuti formation bi ku bëgg a ñëw tey jaaykat yi eh, ñu bëgg a participer. Mhm. Eh, nan la ñuy def. alors pour pour par exemple aujourd'hui nous avons les les stands yu ñuy joxe on les donne à des sommes symboliques hein. 2500 contributions sont symboliques parce que ku xam foire xam stand lu mu ndaw ndaw on le donne à on les donne à 25 000 francs donc c'est des sommes symboliques qu'on donne aujourd'hui mais bon du ñàkk ñu évoluer mais pour le moment comme dañ nekk ci ay début nañu fexe ñëpp ñëw ñu bokk ci ku nekk barkelu barkelu lañ ko mun a woowee su nekk barkelu mu dem ba mu nekk mbir mu jàpp après ñu xool nañ ko mën a def benn business lucratif mais pour le moment c'est un business merci bien merci chers internautes yéen a ngi doon euh, déglu li ne mooy si foire bi nga xamante ne ñëw leen fii muy foire foire bio euh, ñu ñëwoon nag dalal noonu fii ki nga xamante ne moom moo yor initiative lii organiser li nga xamante ne mooy foire bi euh, dégg ngeen ko kon nag maanaam ñi nga xamante ne actuellement ñi ngi yor seen ay produits yëpp mën ngeen a ñëw fi nga xamante ne moom mooy si Baol Times si TV ngeen koy am si Baol TV tamit si seen réseau yi kon nag ñu jàpp ne mbokk yi appel baa ngi noonu ñu leen di lancé foire bi dina am maanaam aussi un mois bu nekk dinañ def li nga xamante mooy foire bi kon nag jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen àndoon ak li nga xamante mooy Baol TV ñu leen di gërëm di leen di sant bu baax baax jërë ngeen jëf